El Malick Ndiaye El Malick Ndiaye ministre bi ñu déglu waa dénk wàllu transport El Malick xoolal fii li ma lay wan gis nga passerelle bii ngay gis postu Caaroy la nekk gis nga li ko daggee postu Caaroy ba Kër Mbay Fall peut-être sax romb na ko mais loolu laa remarqué quoi après postu Caaroy bi nii boo jëmee biir dakaar pont moo nekk ci kanam passerelle yi yëpp dañ ko wekki moo tax ay accident daf fiy faral di am parce que ñiy wàccee ci pont bi oto yi ni ñuy dawee te nit ñi amuñ fenn fu ñu jaar fu dul ci suuf parce que passerelle yi dañ ko wekk te xam nga la moo tax ñu wekki ko jamonoy Macky Sall dafa am benn homme d'affaires sénégalais ñu ñi xam dinañ xam li may wax boo xamante ni ku siiw la moo am benn usine bu mu doon defar fii Sénégal matériel yi pour mu jàll ñu wekkil ko passerelle yi yëpp mais après bi ñu paree montewaatuñu waatuñu ko passerelle yi war ngeen ko monté pour nit ñi di ci mën a jaar parce que moo ëpp sécurité démb rek naa fi benn accident boo xam ne benn bus moo laal benn xale bu jigéen passerelle yi monté waat leen ko parce que boo xoolee tey li ma remarqué mooy depuis poste caaro yi ba Kër Mbay Fall yi fi nekk yëpp dañ ko démonté léegi ki nga xamante ne nii bu fi passerelle bi nekkoon bu fekkoo jaaru fa bu ko oto laalee sax mun na am moom moo tooñ mais bu fi passerelle bi nekkul léegi mu jaar oto laal ko. léegi dans ce naka lay demee kon moontewaat leen li nga xamante ne mooy passerelle yi bu ko defee sécurité bi gën a yokk benn homme d'affaires sénégalais bu doon monté benn société Sénégal pour matériel yi jàll lañ ko démontaloon. ba léegi nii ma lay wax monté waatuñu passerelle bi postu Caaroy fii pont bi moo nekk ne ci kanam oto yi ngay gis yëpp ci pont bi la ñuy wàccee